bokk yi ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadis boo xamante ni xadis bu wër la boo xam ne imaam abu daawud tirmidi ahmad ibnu maaja ak ñeneen ci borom xam-xamu xadis ñoo ko solo mu nekk xadis bu wër nee na képp ku wax ñaan bi ñetti yoon suba ak ñetti yoon ngoon yàlla moo lay aar lenn du la lor incha allah muy njabarkat muy yàqkat muy kañaan muy ku am jalousie mooy lépp lu bon incha allah yàlla moo la ciy aar ñaan baa ngi nii na nga ko wax ñetti yoon suba na nga ko wax ñetti yoon ngoon mooy bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi lsamaai wa huwa alsamiu alalim kon ñaan bii la ñetti yoon suba ñetti yoon ngoon incha allah taala yàlla moo lay aar bu ragal wallahu yaasimuka min kulli charrin wa suu incha allah